ñu fas yéene waxtaane li nga xam nag mooy donc yene kay bi di sunu lomb Zarko Ada nak nag cinquante la kiko wax nak moy entraîneur euh, bu euh, donc Modou Lo moo wax lu ni mel di euh, Pape Mbaye mais aussi wax ci li nga xamne nak moy donc Jakarlo bi wara am digënté ki di ki Bombardier ak ki di Tafatine les Lions et la menace neutralise aussi suñu jogante xarito bi amon digënté équipe nationale locale bi ak wa Niger dañu daal di am jogante xarito bo xamne dañu tembo témboo sa kii nag di Balla Gaye 2 nee na moom mais nak il faut l'accepter Koulibaly nag actuellement gars yi nee na que moom ak waa euh, Blues yi si FA Cup bi dinañ mën a jàmbaarloo waat ak ñi xam mooy donc Manchester City ñu wax également Koulibaly est ce que jamono ji moom définitivement installé ndax ba route bu mu dellu see coupe du monde ba léegi mi ngi def ay match yu baax a baax yéen kay bi stade nag moo ko wax wax aussi ci match bi nga xam mooy Atlético ak Barcelone mais aussi Tribune, Tribune Sport. Ñëw ne Manchester United domine Everton et se qualifie pour le prochain tour 16e de finale yi di FA Cup ñoom nag tey ñoo daal di euh, ci plutôt ah ñoom ñoo dóor dit euh, di Everton mi ndërmeelu ci sen kanam Everton bu Idrissa Gana Gueye yéenekaay bi Sport ñëw ne intouchable De Jong muy que ne actuellement De Jong il est intouchable Sport moko wax momi nga xam nak ci ndorteelu saison bi Barcelone da ko bëggoon jaay fi nak ne nag xalaatuñ ko jaay étant donné que ne ki di Sergio Busquets mom bon muy day daal dem ñu impulsion pour le pivot moy actuellement dal wa Barça pivot la set ñaan ñi dal lañuy ñuy wax du wax hein, Zubimendi ak également Ruben Neves euh, la ñuy wax actuellement donc ki nak di Xavi ak direction Barça ñu wara a pendant ce temps nak euh, sport ñu yëgal di Memphis Depay nee mom contanul ci situation am hein, dafa bëgg juggé FC Barcelone dem ci club bo xam dafay am temps de jeu ndax gis na né hiérarchie bi ñu tek ci Barça mom ñi ngi tek ci kanam sax amana ñu bëri moom gënuñu ko. Euh, taxaw euh, ki nak di Busquets ba léegi xavi mi ngi eh, insister pour mu daal di du côté du Barça mais problème moy salaire am ndax salaire 20 millions par an la daal di am et que loolu la ñu ne du ko nango perte et que MLS dañ koy jox salaire bu ni mel wala sax bu ko ëpp mais Barça aussi am na keneen ku mu muy Benjamin Pavard ñu né agent sax mi ngi déggo ak wa Barça ndax Pavard moom dafa bëgg a Bayern li tax mu bëgg a Bayern moom néna dafa bëgg jouer li nga xam moy défenseur central la ko Bayern arrière latéral la koy utiliser donc lool dal motax tax moom mu japp ne fimné ni il veut quitter le Bayern pour dem ci benen club euh, ki ngeen gis ni nak également di David Beckham ak doomam doomam mo ah moo nekk nii ah di Romeo Beckham Romeo Beckham nak dañ ko al ci Brentford ba saison bi jeex donc Brentford ci Angleterre nañ ko équipe réserve bi pour mu daal di euh, nekk gën a par parfaire li nga xam mooy donc progression kii di doomu David Beckham euh, kii nag di euh, Didier Deschamps officiellement prolongé nañ ko avec l'équipe nationale de France ba 2026, mille 2024, di maanaam deux hein, ci nekk ci affaire euro yeeg yooyu mais 2026 égale égal coupe du monde bi moom incha allah rabi daal moom moo war a ci bang bu équipe de France qui veut dire que les Zidane moom perte na équipe de France encore pour ci di ñetti at yi ñëwaat nii ci kanam donc du du leen yor 4 hein, ans plutôt 5 ans. mooy nekk seen kanam euh, du leen ki nga xam ne mooy donc euh, di Zinedine Zidane ki nga xam ne mooy Dele Alli nag ah daal di résilier contrat ah, ah, ah, di def ay match yu rëy rëy na sa final Ligue des champions moom ak Tottenham bu Mauricio oh, Pochettino benn jamono ñu doon wax naan ah Pochettino da a yóbbu sax Paris Saint-Germain mais Dele Alli daal bañ ko aalee fa nga xam mooy Beşiktaş ba léegi kenn xàmmeetu ko mel na daal jàpp nañu jour bi. li ko Mourinho doon wax naan ko joueur du talent rek il faut ngay liggéey daf mel loolu ko comme fas dal jamono ji ñii nag di Manchester United ñoom ñoo dóor Everton bu Idrissa Gana Gueye 3 buts à 1 Anthony daal nay dugal Anthony bi nga xam ne moom nee na ki nga xam ne mooy donc Eric Ten Hag entraîneur boo xam ne yàgg na ko xam et aujourd'hui xam na fu muy euh, teg tànkam mais match boobu aussi ki nga xam ne mooy donc Alex Iwobi donc le joueur nigérien dafa am ab gaañu gaañu gaañu gaañu boo xam ne gaañu gaañu mett la ci civière sax la daal di génn ñu jàppees ne rek njortees na moom dina lu mu néew néew mu reprendre manam weeru au mois de mars dans lañ jappat Alex Iwobi Bouidal buy qui si ci lay avec Everton mais Marcus couchage Rashford gars mon mom 23 matchs le joué gaï c'est 13 buts le double def 6 passes décisives Mon actuellement mon la gars di bi il est revenu en forme depuis le retour d'Eric Eric Ten Hag moom le nouveau patron des Mancuniens kii nag di Yuri Tielemans gars yi eh, eh, ñi nag di waa Leicester ñoom 30 millions lañ ciy laaj pour daal koy jaay moom nag gars yi ngi naan ay club yi dañ ko bëgg dañ ko bëgg mais Leicester xamal ba léegi amul benn club bu def benn offre bu concrète mais pour jënd ko foog nga teg fanweeri millions ci table bi pour daal koy jënd Algérie gars ba léegi ñoom dañoo bëgg a seen coupe d' bi ñu jëloon liggéey ci suufa suufa suuf toog seen coin d' abord li ñu jëkk a def mooy kii di Jamel Belmadi ñoom dañ ko prolongé ba 2026 ah jox ay objectif yoo xam ne li ko wax mooy que ne 2024 da ngay dem quart de finale loolu lañ soxla ci minimum minimum 2025 mille vingt cinq ñu ne ko da ngay dem euh, demi finale minimum minimum après deux mille vingt six nga daal ñu yóbbu coupe du monde loolu lañ ko wax mais Djamel Belmadi actuellement moom mi ngi def liggéey bu am solo ak fédération liggéey moo jëm si daal mooy que ñoom pendant que yenn gars yi ñi ngi nelaw ñoom dañoo def seen équipe seen benn équipe lañ teg benn staff la teg staff boo xam day wër actuellement àdduna wërngal këpp fep fu joueur algérien nekk nga nekk nationalité algérienne wala boog nga nekk d' origine algérienne ñu waxtaan ak yow ah, fas convaincre la nga ñëw jouer pour li nga xam mooy les Fennecs d'algérie parce que actuellement loolu mooy seen objectif ba tax nag président fédération bu Algérie nee na lépp luy jumtukaay lépp luy euh, moyen jox nañ ko ki ne mooy donc équipe boobu ñu daal di teg en place pour ñu dem wax ak joueurs yi bokk na si ñi nga xam ne mooy donc déjà Aït Nouri bi nekk ca Wolverhampton moom mooy nekk joueur bi nga xam ne. njëkk na accepté jamono jii ni ñëw fa nga xamné moy donc ci Algérie pour jouer ak ñom ki di Riyad Mahrez de mom daal nakoy koy le joueur de 21 ans nek arrière latéral mais aussi ki xamné xam ne mooy Oussem Aouar euh, Oussem Aouar président fédération bu Algérie ci bopam mom mo né donc euh, wax naag Oussem Aouar ba mu jox leen sen principe né day ñëw donc ñom mën nañ am jottes gu rafet né Oussem Aouar di joueur hein, très technique de l'Olympique Lyonnais day daal di ñëw Amid Gouiri également mom né na ñu waxtaan ak mom même bu féké né joueur bi né na mom lolu gars ñoko ñoo ko yëgal fi mu il toujours prend il prend toujours son temps réfléchir manam ba légui mi ngi tok di xalaataat ce qui est que en tout cas au niveau de l'Algérie ñi ngi renforcer sen équipe secteur yi nga xam dañ ci am problème ñi ngi koy renforcer pendant ce temps également est-ce que le Sénégal mi ngi def lu ñu mel est-ce que Aliou également euh, moom mi ngi avancer ci est-ce que jox nañ ko moyens yi da daal la xamul mais dans ce que est sûr mooy actuellement gars yi nelawuñu wa Maroc ñi ngi def la même chose ah li nga Algérie ñi ngi wajé sen bobu baax a baax Sénégal nak li nga xam moy coupe du monde bi ñu jugee daf ñoo feussal né euh, sans Sadio Mané le Sénégal n'existe presque pas ah Sénégal sans Sadio Mané moom da ngay gis né daf melné 50% wala 80% wala 70% dix équipe donc aujourd'hui amna secteur yo xam ne ñu renforcer ko amna joueur yo yoo xam amaguñ amatuñu place actuellement ak sen forme ci équipe bi amna joueur yo yoo aussi il faut ñu jox leen sen opportunité waajal aussi préparer relève bi parce que suñu joueurs yu bëri ils se sont des trentenaires nag nekk na liggéey boo xam ne Sénégal war ko def en amont est-ce que ñu koy def loolu la daal di laaj ci jamono ji parce que au vu des des dafa mel liggéey boobu nag euh, defuñu ko ñu ko waroon defee mais amaana tamit ñu koy def ci suuf pendant aussi ki nga xam ne mooy donc Walid Regragui sondage bu ñu def notamment Foot Africa daal di koy def moom lañ tànn mu jàpp ne moo nekk meilleur entraîneur ne aussi ñu jëm bu ko Maroc jëlul Maroc murta nek fi di kaas parce que munoo nek euh, premier ci coupe du monde bi nga ñëw munoo nek bour ci sa euh, continent donc ñoom c'est l'objectif moy jël coupe d'Afrique bi gars c'était les informations que je voulais vous donner di jégalu ci retard bu ndaw bi nek ci bi rek toujours un plaisir de vous servir woy leen di like mais surtout woy leen di abonner on avance ensemble dans la magie de eSport TV et comme je le dis toujours j'a ngeen Jeff